gis-gis yi wuute nañ ci mhm. euh, mais man dama jàpp ni euh, réaction bu normal la parce que il faut d'une certaine manière donner une suite logique à la chose da ngay xool mbir mi fi mu jógee ak lan ak lan moo xew ba mu am réaction boobu suñ nee nag euh, lu normal la mooy li nga xam ni ca la mu jóge gis nañ ni muy euh, ay mbir yoo xam ne c'est des faits yoo xam ne surtout nag nit ñi doon nañ ko déplorer wala nit ñi doon nañ ko apprécier mais lan moo tax euh, mu normal mooy que mbir mi dañ ko doon déplorer mu nekk loo xam ne dañ koy gis depuis bi nga xam ni campagne yi commencé na muy ay violence yuy faral di am ci yenn gox goxaan yi et noo xam ne taxawee woon na ko woon mu àddu woon ne nañ euh, éviter di euh, tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ut ci violence mais nañuy indi ay idées ba démb rek euh, je pense que maa ngi ko fi revue su ma juumul. Mm-hmm. bam naan li ñu war a défendre dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu jël projet Sénégal vision deux mille cinquante bi def ko argument def ko arme. au lieu ñuy nekk di tontu wala di diaboliser ñenn ñi c'est-à-dire que au ñuy wuyu ñenn ñi ci violence. Mm-hmm. mais tey su dee am na réaction bi mooy que li ñuy wax trop c'est trop trop nag mooy que parfois di nga dem ba benn situation. mbir mi bu dee teraanga la mu ëpp la doole nga am benn réaction boo def bu dee safaan ba mu ëpp la doole nga am benn réaction boo def et loolu la ñu gis actuellement bon su ñëwee nag ci fi nga xam ni foofu nga relancé waate mooy. Euh, différence bi am entre moom ak opposition bi ba nga xam ne li nga wax ni Barth nee na euh, benn instant lim nu doon am na ko mais il faut il faut il faut il faut savoir fair pour man la part des choses euh, moo tax j'ai bien aimé euh, le post de Amadou Ba de Pastef gis nga parfois bu dee yow xam nga ni tu n'as plus rien à perdre tu as déjà perdu euh, tu vas préférer nga xajamal tu vas préférer indi loo xam ne tey jii nii daf lay euh, musal peut-être ci défaite daf lay musal ci gàcce des trucs du genre donc parfois di nga toll foo xam ne da ngay salteel parce que doo bëgg a aboutir aux résultats yi nga xam ne ils ne ils ne te sont pas favorables moo tax dafay am foo xam ne bu ñu fa tollee il faut que ñuy mën a def la distinction entre la politique ak ñi nga xam ne dañuy def des choses qui son apolitiques violence yi bu ñu gëmloon nit ñi ne que dafa bokk ci politique violence yi nekkul dara lu dul synonyme manque d'argument violence nekkul dara lu dul synonyme de faiblesse violence nekkul dara lu dul synonyme da lâcheté léegi nag il faut que l'État prenne ses responsabilités chaque jour moo wax ko fi mooy am na foo xam ne bu ñu fa yeggee ba nga xam ne ñun amatuñu capacité ñun amatuñu lee moyens pour jëf amatuñu les moyens pour agir foofu la ñuy woowee État mooy que devant certaines chose on présente une certaine incapacité devant certaines chose on présente des limites loolay tax tey jii nii ñu ne état il faut mu ñëw jël ay responsabilités parce que am na noo xam ne boo ko agiré même buñ la dóoree sax yoon daf naan lii waroo ko woon def mën ay daan mën na ci juddu moo tax chaque jour su ñuy wax ñu ne état bon am na ñuy interpréter nag ne état dafa faible et bu ñu ñëwaatee ci Paul Valéry li mu wax dafa ne si l' état il nous écrase si les faibles nu périssons mm -hmm. mais il faut préférer d'être écrasé que périr parce que écrasé bi mooy que du yow ñeen ñëpp la rëq seen ndigg mais balaa état di mën a rëq sa ndigg il faut nga wàcc yoon boo wàccul loolu ñu naan ku def loo xam wax loo xam boo tëddee da ngay nelaw par contre bu dee nag état bi dafa bàyyi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def lépp lu leen neex lépp lu leen soob là bokkul sax ci principe de la démocratie loolu bokkul ci li nga xam ne mooy doxal réew bu boobaa dañuy nekk peut-être dans l'anarchie et kenn souhaitewul anarchie am parce que anarchie dafay nekk loo xam ne benn loi mooy am mooy la loi du plus fort ku mën sa moroom duma yàlla nañu yàlla musal ci ku mën sa moroom duma léegi nag su day ñaar dañuy xeex kenn xamul ku mën kii mën na jekku kenn mën na jekku suñu tollee foofu état moom moo war a ñëw àtte mm-hmm. te lii nga xam ne mooy violence électorale yi ñuy gis je pense que il est temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités bu jëlee ay responsables ñu nga xam ne ñoom ñoo ci laale ñu situer les responsabilité si l'État a pris ses responsabilités ñu situer les responsabilités de ces gens-là yi nga xam ne ñoom ñoo waral mbir mi am ñu sanctionner leen il faut peut-être savoir raison garder am na foo xam ne bu ñu fa yeggee rupture d'accord c'est bien beau rupture dañ la naan bul xeex yaa yor càq bi mais yaa yor càq bi nit ñëw kobos la nga bàyyi mu ñëw yéeg nga bàyyi mu ñëw pes la nga bàyyi caq bi lay bëgg langaamu xojee la ko te soo moytuwul fa ngay yam mhm. qu'on se dise la vérité ci tànk yi lay commencé di la wax Abdou day dem après pes la nga ni non naa baal caq bi lay jël langaa ko ci yow xoj la am na foo xam ne nag bu ñu fa yeggee il faut que nit ñi amaat beneen taxawaay politique jarul lii politique jarul lii honorable wax na ko bukki bu yebee gane ci doxin baata am na ñoo xam ne ñoom la ñuy attaqué mais je pense que am na benn taxawaay boo xam ne bu ko amoon les gens allaient penser autre chose que di attaque attaquer nag encore une fois manque d'argument la. am na loo xam ne ñoom ñu ngi koy xaar ci ñoom lu dul li nañu ni programme les gens sont prêts à voter te ñiy voter la plupart ñu ngi ci kër yi militants yi après dinañ voter d'accord mais indi sa programme am na loo xam ne da ngay déstabiliser sa bopp am na loo xam ne da ngay yàqal sa bopp sans pour autant le savoir war nañu dépasser fii pour man surtout que vous avez partagé des moments yéen a bokk terrain gars yi ñu ngi leen di sécuriser couverture médiatique bi mu ngi am ku ci nekk mu ngi waxee ci télé bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk yenn télé privé ñu ngi topp ñi ñuy topp ñi après où est le xam naa dinañ leen dëgtal benn vidéo boo xamante ni Saint-Louis la. Euh, bu ci kii bi nga xamante ni foofu la ñu dugg attaqué leen aussi peut-être ci kanam tuuti. boo mm-hmm. ñu ko mën a làmbal sugu ñu mën ko jot mu euh, daati ñuy <laughs> indi situation bi naka la demee naka lañ def bañ attaqué leen ak lan moo fa xew euh, réellement mais honorable li li nga xamante ni jamono juñ toll nii moo xew ci violence dafa mel ni dafa daal di indi benn crise ci biir Pastef ndax ñeen ñi ñu ngi commencé di fësal seenu mer jëmale ci voilà ci président Bassirou Diomaye Faye di wax. wax ni voilà daf leen a seetaan di wax ni euh, rupture bi nga xamante ni moom lay jéem a incarné dafay néewal doole li nga xamante ni mooy Pastef dafa dem ba indi benn crise ci biir Pastef loolu aussi pour ñu génn ci situation boobu la nag la ñuy def. xam nga dañ ne dañ bëgg rupture. Mhm. rupture tàmbalee ci ay oto wu ba ca takk der yi ba ci takk der yi mhm. ñu ne. bu ñu topp sawaay arena bi ñëpp gis nañ lañ ko organiser gendarmerie nationale mu ngi woon ci entrée autoroute à péage bi. sécuriser les merci beaucoup ñu ne ñoom nañ gérer seen lépp balaa nit ñi naan rupture amul mais campagne électorale seen l'État qui l'organise mm-hmm. bokkul ak Dakar Arena bu waa Pastef di organiser. différence <laughs> les élections c'est l'État le gouvernement qui l'organise ki les organise le ministre de l'Intérieur à sa ca kaw boppam moom moo fay ne premier ministre président de la République doon nañu gis nag njiitum réew ñu dem élection député wala élection locale mu ñëw di jàppale waa parti ñu ne non lii du bosam local sax bosam la peut-être ni mu ci duggee moom mooy ànd ak modestie mais même élection locale collectivité territoriale yi sur cinq cent cinquante sept collectivités l'actuel pouvoir géré wul ça tous les Yewwi amuñu woon cent te maire yooyu am na ci ñoo xam ne tey ay opposants lañ mel ni ñoom Barthélemy Dias dëgg loolu dëgg mais imaginons tey maire yooyu ne ci seeni gox di xajamal contre la pouvoir actuel fii ba deux mille vingt sept su président bi melee nen wala indiwul rupture ni mu tasee assemblée tas collectivité territoriale yëpp pour réew mi ànd ak jàmm mënoo nekk ab maire ba pare ne nguur gii nekk fi te yow nga nekk un démembrement de l' bu ministre ñëwee sa gox yaa ko war a gàttandu su président de la république a ñëw sa gox yaa ko war a gàttandu te yow yaa war a njëkk a discours war a discours un discours républicain patriotique buy wane ne ça c' est l' ñi du leen may jàmm. dama leen di yàqal lépp lu ñu war ci mënti def man su ma mënee xañ leen ko xañ leen mais ñoom it am nañu prérogative boo leen bëggee yàqal yàpp yi dal <laughs> constitution daf leen koo may code yi fi nekk yëpp may leen ko ñu ne seen l'État kii organise des élections ñoom seen bopp ci seen bëgg indi rupture ak ci seen modestie ñu ne État